ci suñu quatrième émission suñu troisième émission nag ñëwoon nañu ak yéen ba yeggoon ci lan mooy ujbu waaye ñu duggoon ci benn ruq ci wàllu teewlu lan mooy jur ci nit ki ñàkk teewlu ba su kàbbaree war a jàkkaarloog boroomam xelam ak xolam yépp di aju ci àdduna ba li ko julli waroon a jariñ du ko ko jariñ ndax xam ngeen ne weer wi ñu nekk di weeru rajab ci la julli wàccoon te bi yàlla wàccee julli dafa waxoon ne aqimi salaata li dhikriya sax leen julli ngir ngeen mën a sax ci dima fàttaliku maanaam bañ a tàqalikook seen boroom ci benn heure loolu li koy def mooy julli léegi nag yemu ci mu ne inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar julli googu dafay tere nit ki def lu baax waaye dafay tere nit def lu bon lan moo tax ñu nekk ci réew mu bari ay jullit ba tey ñuy def lu baax ñu wayé fataliku wala di fataliku suñu borom ñu te fuñu tollu ngi julli lolu lan mo ci solution li tasawuf di jangalé moy yar nit ki ba liñ la waxon ci benu émission bi Nous ubbi di def ta'rif dañ la waxon ne nous bi ihsaan boobu la tasawuf ñëw di jàngale di ko leeral daf la waxoon ne an taabudallaha ka annaka taraahu mu ne mooy nga jaamu yàlla mel ni da nga sa boroom nga yegg ci niveau concentration boo xam ne nii mu ma wóoree ne caméra laa jàkkaarlool awma ci benn sikki sàkk mu wóoree ma noonu laa jàkkarloo ak yàlla ci degré boo xamante ne ni bu yàlla indi woon mboolem li màgg li rëy li raklu yépp teg ko sa kanam ni ngay bàyyee xel loolu ba sa xel du gestu faneen boo taxawee di julli noonu nga waree bàyyi xel sa boroom léegi nag lan mooy indi nit di sàggan di saggan di saggan dem ba heure julli boobu jot muy mën a am leneen beneen soxla buy taxaw ci kanamam bu koy gënal julli gi mu war a def ba tax mu naan naa def nàngam après ma door a julli wala même su ma dee julli sama xel ci nàngam lay nekk te danga waroon def nàngam sa xel nekk ci julli ba doo xam looy def maanaam misaal bi ma jëloon ci émission bi passé tey da nga waroon a nekk ci di seetaan match football équipe bi nga faral nekk ci ay occasion wu bit nga di ko seetaan mënatoo gis li ngay seetaan parce que lan parce que nodd nañu waaye léegi contraire bi moo am dañuy nodd nga ne su ma demoon di julli tamit sama xel ci match bi lay nekk kon naa seetaan match ba mu jeex ma door a julli kon la waroon a am contraire bi moo mujjee am luy waral loolu nag mooy feebaru xol yi mooy dañoo bàyyi seytaane mu fowee suñu xol bëgg alal bëgg ngistal bëgg siiw et yooyu la dugal suñu xol bañu fees dell ñu fàtte yàlla sori yàlla moo tax bu ñu kàbbaree di julli suñu xel ak suñu xol yépp àdduna moo ciy nekk loolay waral cër bi borom bi waroon a am ci ñun ba tax ñu fàtte àdduna ak li ci biiram ñun contraire bi la ñuy def dañuy jàkkaarloog yàlla suñu xel ak suñu xol nekk ci àdduna léegi nag solution yooyu la tasawuf ñëw di jàngale waxoon na la ci émission bi passé na la naw say jëf nit du naw boppam boo nawee sa bopp loo def da nga koy naw doo xeeb li ngay def ci ay tiyaaba mais danga koy naw mais li gën a bon mooy dangay ngay say bàkkaar te nit danga war a fexe say bàkkaar lu mu tuuti tuuti mu tere laa nelaw sa bàkkaar lu mu tuuti tuuti daf la war a teree nelaw say tuyaaba lu muy bari bari waroo koo gis léegi nag bu fekkee dangaa naw sa bopp nag soo jullee ñaari rakka sax yow doo xool ki julli fukki rakka xam nga koy xool ki dul julli fee nga jàpp ne yaa ko gën kon jàmbaar nga ndax def nga effort te contraire bi moo woon a am boo julli woon téeméeri rakka waroo koo gis parce que yow doo ci dara dañ laa xéewal baaxe la dimbali la defal la ba pare may la loolu yépp nga waroon a effacé wu nga dem daal exposé sa bopp nag ci kanam jàpp ne lépp yow la su ko defee nag li nga defoon ci ay mooy yàlla danga koy xeeb te boo ko xeebee doo ko tuub te boo ko deewaalee mu doon musiba moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon ne ida sarratka xasanatuka wa saatka sayyiatuka fa anta muminun mu ne doomu aadama yi boo demee ba yow sa jëf yu baax yi daf lay neex de maanaam boo jullee da kontaan parce que yéen nekku naa yan bi nekkoon sama kaw def naa sama devoir kon nag war naa am euh, ak féexu xool niki noonu boo saraxee boo jokkee mbokk et cetera waaye mu ne na fekkaale itam sa jëf yu bon di la naqari mooy soo juumee ba def safaan mu tere laa nelaw nga am ci naqar lool foo tollu di jéggalu yàlla njuumte lii ma def mu ne ki boole ñaar yi mooy lu baax neex ko lu bon naqari ko mu ne kooku mooy jullit kon su ko defee suñu émission wu tasawuf nag dañoo bëgg lim feebar yooyu nga xam ne mooy gàllankoor nit ki muur xol bi ba dootul am leer gi mu daan am ci julli te leer googu boo ko amatul julli dootul neex ci yow na mu neexee woon ci yonent bi sallallahu alayhi te bu neexeewul ci yow noonu du la jariñ njariñ li ñu bëggoon te mooy jokkale la sa diggante ak sa boroom ba tout le temps looy def nga xalaat ci yàlla waaye tamit tanha anil fahsha wal munkar mu yegg leeru julli gi bu tàbbee ci sa xol màgg yegg ba ci say cër cër yi dootuñu mën a def ñaawteef comme ni ko suñu sëriñ bu baax ba Thierno Souleymane daan jàngale mu ne koo gis mu mën a jël alalu jàmbur mu ne leeru ngëm yàllaam dafa eggagul ci ay loxoom koo gis mu mën a njaaloo mu ne leeru ngëm yàllaam moo eggul ci ab payam ku mën a lekk riba leeru ngëm yàlla mu eggul ci biiram niki noonu ku mën a fen sa leeru ngëm yàlla moo egseegul seegul ci sa làmmiñ maanaam julli gi nga xam ne mooy tax sa ngëm yàlla di màgg di màgg bay egg ci cër yi julli googu bu fekkee ne baaxul ngëm yàlla gi dootul màgg fa mu yemoon fa lay yem mais du ci yem dafay muuru ñooñu alquran nak la bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun mu ne ñi nga xam ni dañoo dema dema dem ba seen xol yi dafa xomaag pourquoi li seen loxo yi seen jëf yi li muy fàggu ma li ñuy def ci lu bon moo dem ba xuural seen xol yi mu xomaag moo tax dootuñu am benn sentir ci yàlla ci yenent bi ci mbaax su ko defee ne kooku mbon moo koy neex boo ko doon waar sax naan seet booy bu ma waar man jàgg naa dégg waaraate dégg nga nag jël la récupérer la fexe di faj feebar yooyu benn par benn benn par benn ba demaat nga effacé wu fàtte sa bopp def li wax isaar gënale sa bopp sa moroom ci sa bopp commencé nak di bëgg yàlla di bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di wétal yàlla di def fo tollu ñu joxe nak fofu la wax won ci émission bi passé ñu lay jox ay ahzab ak ay awrat amna suñu ben mbokk imam Abdou ñang bu def sétlu mu ne ma ba waxate baad arab yoyu dék wax ci olof kon imam Abdou wat na fi ma tollu won ci ahzab ak awrat ahzab moy dok yiñ lay jox ci wàllu ay jukki lu mel ne ñu la tey ab tijaan nga ñu ne cheikh nee na amoo droit yow talibe cheikh bi xëy soo ba ngoon te jàngoo alquran góor góorlul ba weer bi wàcc ci kaamil chaque jour muy ñaari xisib loolu mooy ay ahzab awraat mooy wird yi li ngay wird jël astaghfirullah jox la ne la da ngay fóot sa xol bi mooy astaghfirullah jéggalu yàlla pour effacer bàkkaar yi nga defoon euh, fa nga defoon lu bon nga def fa lu baax comme ni ko sallallahu alayhi wa jàngale mu ne foo def lu bon rek góor-góorlu ba def fa lu baax lu baax la effacé ko waaye ñu ne la bala ngaa def dara dara dara da ngay jéggalu yàlla si bàkkaar yi nga xam ne xam nga ko yi nga xam ne xamoo ko yi nga xam ne da nga koo xalaat sax te defagoo ko li nga xam ne da bëgg sax te defagoo ko yépp jéggalu ko yàlla ñoom foofu lañuy yóbbu nit ki ba dem ba nit ki nag dootul bàyyi lu bon ndax nit ki nit ñi dootul bàyyi lu bon ngir bañ dem safara du ko bàyyi ngir dem àjjana daf koy bàyyi parce que daf ko jomb daf ko rus a def léegi ndax la jege mu jege boroomam astaghfirullah yooyu soo ci paree ñu ne il faut nag nga renforcer sa ngëm yàlla la moo koy renforcer salaatu ala nabi mooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mooy xeetu jaamu yàlla bi nga xam ne moom dong la yàlla bokkule ak ñun yàlla du woor te moo santaane koor yàlla du aj maaka moo ko santaane du joxe azaka moo ko santaane du julli comme suñu julli yi moo ko santaane waaye salaatu ala nabi moo ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yàlla ak ay malaakaam dañuy julli ci yonent bi kon nag yéen julliti deen julli ci moom inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayuha amanu ee yéen ñi gëm yàlla sallu alayhi julli leen ci moom ñooy la kon façon jaamu yàlla bi nga xam ne amul pertement heure boo ko defee baax na boo ko defee kenn du ko saisir ëllëg yowmal qiyaam boo jubloo penku def ko baax na soo amee njàpp baax na soo amul njàpp baax na boo tëddee sa kawlal baax na ban jaamu yàlla la mën nga di julli ci biir julli gi nga ngistal ci mu yàqu sarax noonu azaka noonu mboolem jëf yu baax mais salaatu ala nabi yàlla fonk gi mu fonk yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ne foo ko defee ak noo ko defee ma nangu ko ci kaw ak ci suuf ak mbooloo kenn dinaa ko nangu ñaareel du ci yem sëñ moo daraame xam nga ne mën ngaa julli ba pare ëllëg yowmal xiyaam nit ki dem ci kanamu boromam julli yooyu ñu saisir ko fayee ko ay bor ñii lebta duñu fay triande xaalisu jamburi yi jëw jàmbur yi bu ñu demee bàkkaar borom la leen poñee ne yàlla diw def na ma nangam sama àq na ma ko jox yàlla xol ne nañ ko jox tisbar bi ak takusan bi ak timis bi mu fayé ko nangam koor nonu asaka nonu yëpp mën nañ ko saisir fayé ko mom la borom la xati wax al muflisun mune ba mu dess salatu ala nabi jàng fi ben salatu al fatiha bo amoon téeméeri milliards bakar bàkkaar téeméeri milliards yi àq dinañ nangu say julli fayee ko nangu say koor fayee ko jeex des rang di la laaj seen bor saatu al bi yaa ngi ni jàll kaw ba suuf kenn du laal yàlla def naa naa lii nag ci sama bi la def kon bàyyil man yalla, ma fayal ko ko ñi xamul nag daan nañu wax erreur yu mel ne ku werd saatu faatiha bu lekkee sa bor bu lekkee sa alal su dee perte nga ndax ëllëg du ko fayeeku déedéet tekkiwul doo fayeeku de yàlla da ne man maa koy fayal duma jël ci kontam di ko fayee mais man yàlla maa jël ci sama magasin yu tedd yi fayal ko bor ndax lan julli gi mu julli ci sama soppe bi roye ma ko man yàlla subhaanahu wa taala moo tax ñu lay jox ginnaaw boo fóotee sa bopp ci astaghfirullah fóot sa xol ba sa xol jaamu yàlla gi gën a gaaw gën a sakkan muy salaatu ala bi nga toftal ko ci ngay gën a am cofeel ci yonent bi xam nga ni ki boo ko soppee rek da nga koy roy yomb naa misaal ci suñu star yeeg yenn kii nii xale yi ku ñu sopp nu mu watoo noonu la ñuy watoo nu mu solo noonu la ñuy solo muy góor muy jigéen du noonu ñoom nag dañuy fexe nga sopp yonent bi boo soppee yonent bi di ko roy te boo ko royee texe li ñu lay jàngal yépp nag du woon dara lu dul pour nga roy yonent bi ñu xool ban yoon moo gën a gaaw pour nit ki jéem a roy yonent bi ñooy na fexe ba nit ki sopp ko rek parce que ki nga fan ni mu doxee noonu ngay doxee ni mu waxee noonu ngay waxee ni mu solo noonu ngay solo te nag boo roy yonent bi sallallahu alayhi tànk tànk kondom kondom ba biir àjjana su ko defee tasawuf nag loolu moo ko indi du diine ju bees du lu ñu sos lu bees déedéet ñëw fexe sàmm li yonent bi sallallahu alayhi wa indi woon fexe ko ñoŋol fexe ba nan la nit ñuy def ba mën a jëriñoo li yonent bi sallallahu alayhi wa indi woon loolu mooy indi woon tasawuf su ko defee xam naa ñi ma koy waxee rek yenn saa yi fi waxtaan wi neexee fala waxtu wi jeexee ñu joxante rendez-vous rek incha allahu ba alxamis ak jàmm ñu ñëw na ci ar mooy ngistal lan la ci yentibi sallallahu alayhi wasallam wax lu koy waral nuñ koy faje insha allah kon ñu leen jox rendez-vous al khamis ak jàmm assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh